على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصحبه على نبي وعليهم أجمعين سلام وتين من بعد طائن ولا من ثم ستة أشهر رعى كم في لاقي سبح لم أجمعين سلام ركلا دائما لما بسم الله والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وزل على النبي عليهم أجمعين سلام بنا دائما مرضى سجن في يوم الاثنين في شهر المعاد ضمير لأبرويزة مدى العشرون من القوار لنا على النبي وعليهم آه، أجمعين سلام ربنا دائما مدى تجميل وكان بدءا على حب الخلائق إلى أن جاء في الغار روح القدس لم ينام على نبي وعليه أجمعين فلما ربنا دائما عامة ثم خشيا وغطه لبلوغ الجهد قال إلى فقر وقال له ما ذاك من مولانا على النبي وعليه أجمعين آه. سلام ربنا دائما ذكر الجنة إذ كرر ثمرات يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم مولانا على kon ni ko baaxoo di def rek bis bi ñëpp di am jot ñu tase fàttaliku gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglu zikkar tooyal xol yi loolu mooy li xam ne moom la ñu jublu ci guddi su ko kon am koo xam ne moo ñu war a ci kàddu gi ñu di ko wax sëñ Babacar Gaye waaye balaa ñu dugg ci programme bi dañuy jox benn xale mu commencé ñu jàng tuuti alquran xale yi nekk ci daara Cheikh Tunkara benn xale rek la ci jox mu jàngal ñu tuuti alquran su ko defee ñu jox daayira Tijaan bi ñu commencé si kat loolu ñu dugg ci waxtaan bi Mouhamed Diagne ah kaay jàngal ñu tuuti ngir message la bu ñu war a jàllale yi dogal na Cheikh Tidiane Ould jël naam ya sacrifié ci xale yi ubbi daara mu leen a jàngal alquran loolu tax bu nit ñi tasee ñu jël ci kenn mu jàng alquran waa nii seeni doom xam ne pour ñu bëgg sa doom jàngal alquran am na koo xam ne dañ ko fa jàngal alquran te duñ la ci laaj dara kon message boobu la ñuy bëgg a jàllale ci mbooloo yi nii looloo tax ñu leen ñu jàngaloo kon waajur yëpp ñi nga xam ne dañ koy yore seen doom nañ xam ne doom bëgg mu jàng alxuraan boo ko indee ci daara Cheikh Ahmad Tidiane Moutara dal ko jàng alxuraan xaalis na wajillah te ñu la jàng daal euh, kon fa tabarakallah ñu dox daayira Tidiane bi ñu commencé ak musique balaa ñuy jëm ci waxtaan bi ak yeneen kuréel yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناصر بالعقيل والهادي إلى صراطك المستقبل